waa bu sànnee la di dugal loolu. waaw asalaamaaleykum waaw Sénégal waaw lii mooy équipe bu jamaa bi Fera ak Sonko waaw ñu ngi nii si canalu Poste Crève bi frontière euh, frontière diggante Poste Crève ak Farafeñe ñu ngi si frontière bi nii canal bi moom la ñu dund waa Fera na tey yéen gis ngeen ñu taxaw nii waa Fera di liggéey pour canal bi gis ngeen lii yëpp si canal bi lañ ko génnee. canal bi moo nekk nii lépp fatt lépp ngeen di gis nii gis nañ bi gis na bi yëpp canal bi moo fatt ne Fera Pascal mairie yi zone Mbindi Sarr moo ñu yebal fii ñu jëmmal ko ñun waaw nag liggéey Sénégal rek la waaw li ba jamaay jot si sonk ñu di liggéey ñu mën leen di kes defal eh jëlal moom am na ko ay ay ay ay waaw bu sànnee la di dugal loolu. waaw asalaamaaleykum waaw Sénégal waaw lii mooy équipe bu jamaa bi Fera ak Sonko waaw ñu ngi nii si canalu Poscré bi frontière euh, frontière diggante Poscré ak Farafeñe waaw ñu ngi si frontière bi nii canal bi moom la ñu dindi nii waa Fera na tey yéen gis ngeen ñu taxaw nii waa Fera di liggéey pour canal bi gis ngeen li yëpp si canal bi lañ ko génnee canal bi moo nekk nii yëpp lépp a fatt lépp gis nii nii la gis ngeen su ma ko jotee bi gis ngeen li yëpp canal bi moo fatt nii waaw mooy noonu ne Fera moo ñu yebal fii ñu jëmmal ko ñu lépp nag si liggéey Sénégal rek la waaw moom na ngeen fexe ba jamaay jot si sonk ñu di liggéey ñu mën leen di kees defal eh jënd moom am na ay joxal usa bi neexul di jawe day teew bam da boo jëlee ndox ci la ko xet mën a liggéey am ay ay joxum benn pour boo ko jamee day day boo ko nii la mel ñu ngay gis nii boo ko nii la mel boobu fii yëpp dafa sant. defal eh jënd moom am na ko. looy def. ay joxal. misaal bi neexul di ñëwee day teew. ba mu boo jotee noonu dina ko fekk ba mën a liggéey. amul. ay ay joxum beneen pour misaal bi boo ko jëmee day day. ñu ngi lay gis nii ba fële nii la dalli mo tamam yo yamam yam yo dalli tay mo jak waaw moom moo xam ne équipement bi. waaw yoon yoon. gis nga lii lañ koy génne de mét dëkk la yëkkatiwaay yi ñu ngi ko seetlu ko yëkkatee la. waaw. waaye bu amee comme gën nga xam ne moom dina ko mën a am mën di waaj ñoom ñaar la yéen ñaar yéen ñaar yéen ñaar la mën da yéen ñëw di fekk sa bopp xaw ma kenn ko mën dara waaw yow mën nañ ci dara da lool da ngay jëmaloon daal ngeen ko ngeen ko génne